انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا سنبرم يلا batayti iswaru ashabul kahfe nga xam ne ashabul kahfe waxoon nañ leen ne ay jeune lañ ay jeune lañ yoo xam ne dañoo joxoon seen bopp yàlla dañoo jébbalu woon ci borom bi weddi li nga xam ne mooy bokkaale ya weddi shirki ya daal di dund dugg li nga xam ne mooy ci diine tawxid daal di wéetal yàlla jamono ba nga xam ne wéetal yàlla jafe woon na borom bi nag di nettali seeni mbir mu ne wa kadalika niki noone baasnaahum la leen laa leen dekkale laa leen yeewee maanaam ci la leen jële ci li nga xam ne mooy seen nelaw ya xas parce que ñoom bi ñu duggee bi ñu ci biir xunt wi mooy biir montagne ba dañoo nekkoon di nelaw nelaw da leen faa gaar borom bi ci coobareem da leen naa nelaw loo luy tolloog ñetti téeméeri at ak juróom ñeen fukki at su mborom neena wa kadalika baatnahum borom neena ba mu sob ma rek ma daa di leen yee li yatasaalu baynahum ngir ñoom seen biir ñuy laajante di laajante qaala mu daal di wax qaa'ilun kenn ci ñoom minhum ci ñoom kam labistum waaye ñun ñaata fan lañ def fii ci montagne bi ñaata fan lañ def ci gorot bi xunt bi fii ñaata fan lañ fi def ñoo ngi laajante seen biir kat waaw ginnaaw bi ñu nelawee ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom ak fukki at ak ñeent fukki at juróom-ñeent bi ñu yeewee nag mel ni ku nelaw démb rek guddi seen yaram yi kii ku nekk di fudd naa waaye man sama yaram yi sëñ bi nu muy méttee nii moom li lan la man daa mel ni ma tëddee fi yàgg na de. ñu ñu ñu hésité nag di jaaxle waaw ñun suñu nelaw bi moom ñaata fan la duré ma ne ko moom nelaw bi da yàggut nelaw bi yàggut de man daal li ma xalaat kenn ki ne ko li ma xalaat daal xaaloo labis naa yow man aw ba'd yawm ñun daal dafa mel ni nelaw nañ fi fan benn guddi guddi ne ko déedéet matul guddi xaaju journée rek lañ nelaw xaaju journée te ñoom ñu ngi nelaw ñetti téeméeri at lañ tëdd di nelaw ñetti téeméeri at trois cents ans lañ tëdd di nelaw mais bu ñu yeewoo di ngi am yëg-yëgu comme ku nelaw depuis démb ak léegi léegi nag bi werante bi bëgg bëree seen biir xaala am ku ne xaaloo ñu ne rabbukum seen borom daal aalam moo gën a xam bi ma labistum ñaata fan ngeen fi def yàlla daal moo gën a xam ñaata fan ngeen fi def ci saa si ñoom ñëpp ñu daal di yëg xiif kenn ku nekk si ñoom yëg xiif bu méttee métti métti parce que yàlla bëgg na leen a génne montagne waaw yàlla bëgg na leen a te comme yoruñu woon ay lekk foofu indaale wuñ lekk yoruñu lekk foofu bu ñu xiifee il faut ñu génn muti lekk fa baxasu ahadakum ñu daal dina yónni leen kenn ci yéen maanaam kenn ci mbooloo mi na génn bi wariqikum haadihi ci seen xaalis bi ngeen yor fekk bi ñuy dugg ñu baal leen ay quelques pièces mais bul fàtte pièce jamono jooja voilà pièce bi romb nañ ko c'est passé <laughs> voilà ñoom pièce boobu lañ lañ yoroon am ku ne waa léegi fa baasu yónni leen ahadakum kenn ci yéen bi wariqikum haadihi ilal madina suñ pièce bi daal nañ xool pièce bi lan lañ ci mën a am na am ku jël pièce bi daal di dem ca ville ba ilal madina ca ville ba boo demee fal yanzur na nga xool ayyuha azka taaman ayyuha azka taaman restaurant yi ku ci gën a neex lekk nga jëndal ñu ci pièce bi luñ lekk nga indil ñu ko ayyuha azka taaman ku gën neex lekk ku gën a set lekk waaw boo demee ci fu ñu jaay lekk yow fàttalikul ayyuha azka taaman ana ci jaaykatu lekk yi ku gën a set ku gën a silwise waaw bu ko defee fal yaatikum na ngeen ñu indil bi rizqin minhu lenn ci xéewal yi am ci marché bi bu ko ñu mën cee lekk waaye nag yow miy dem nag fal yatalattaf na nga nëbbatu de muurul sa kanam gi ba kenn du la xàmmee ñoom yaakaar nañ ne ñu ngi seen jamono ba tey falyatalataf kii dem na mën na nëbbatu wala yushiranna bikum ahadan bu la kenn yëg bu la kenn yëg bu kenn gis nag parce que xam naa ne dëkk bi yëpp fi mu ne ñun lañuy ñuy seet innahum ndax ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum buñ leen xàmmewee yarjumukum dinañ leen sànni ay xeer aw yuidukum fi millatihim wala ñu xëcc leen delloo leen seen diiney bokkaale walan tuflixu aba idan abadan te bu ngeen ko defee du ngeen texe mukk ba yomal qiyaam waaw kon daal yow booy dem ci ville ba di jënd lekk na nga nëbbatu bula la kenn gis ndeysaan ñoom bi ñu yeewoo ci seen xunt bi dañoo xool ne naka la ñuy def ba am luñ lekk Maximilianos bi nga xam ne moo leen jiitu woon daal di génnee seen yooyu ñuy def xaalis mu ne ah man yoroon benn pièce pièce bii mën nañ ci am lu ñu lekk ñun ñëpp léegi kan mooy dem dëkk ba jëndi lekk Maximilianus man ta dem parce que moo ci gën a siiw ñëpp ko xam ñeneen ñi te vraiment tamit ay conseil ministère lañ mënuñ dem ñëpp leen xam léegi ci lañu jël bi moom moo ci gën a mooy xam mooy siiw moom mu leen bàyyi leen ma dem man sàmmkat laa gars yi xamuñ la voilà le mooy connu léegi moom mu jël affaire bi daal di muuru kaala ànd ak xaj bi parce que bi ñu yeewoo tamit xaj bi daa yeewu mu dem ci ville ba bi mu duggee ci dëkk bi bi mu génnee ci àll bi rek ba commencé dugg ci ville bi ci la commencé jaaxle mu ne wow ñun suñu nelawu démb bii rek gars yi gaaw nañ ba soppi dëkk bi nii xaat xaat xaat changé na complètement <laughs> changé na complètement mu ne ah léegi nag ku mu romb nit ñaa koy xool mais li ñuy xool ci moom mooy façon bu mu soloo parce que façon bu mu soloo façon bu yàgg la façon bu yàgg la moom mu yaakaar ne gars yi dañ koy xool parce que dañ koo xàmme muy nëbbatu di nëbbu kanamam bi fekk na ñoom xamuñu kii kan la mais dañ koy xool ak façon solin bi ñu naan waaye kii moom solu cosaan bi mu sol nii moom sol bi yàgg na de moom fi muy jaar yëpp gisul lu mu daan gis xàmmewul fii fan la gis na ville bi naat na nit ñi vraiment gën nañoo bari bu jékki woo benn waay ne ko fii du philadelphia dëkk bii du philadelphia mu ne ah kay philadelphia la kay ah waay man kat damaa kon dama réer mu ne ko yoon bii demul ci marché bi mu ne ko ah kay yoon bii moo dem ci marché bi voilà mu ne ko waa ah, baax na jërëjëf mu continuer di dem mu dem ba ci yoon bi mu dajeeg benn waay boo xam ne saretam la yor saret salaire bi polo bi moo dugg am fu mu dugg ci benn pax moom attanul saret bi pour mën ko yëkkati pour fas mën a xëcc xëcc bi mu daal di ñëw fekk kooku ci jafe-jafe yooyu mu dimbali ko daal di koy yëkkatil li nga xam ne mooy sareet bi ngir fas bu xëcc sareet bi fareet bi génn ci pax bi bi mu dimbalee kooku ba pare kooku daal koy daal di koy ne yal na la yàlla fay ne ko yal na la yàlla fay tiit ah dëkk bi dañoo mujjee gëm yàlla parce que daawañu wax loolu ñoom dañ naan wax yal na la buur bi fay waaw Diqyaanus seen buur bi loolu lañ wax ah yow de yal na la Diqyaanus fay yal na la Diqyaanus yërëm loolu lañ daan ñaanalantee turu yàlla kenn du ko fa tudd parce que kirim la woon mais bu mu dimbalee kii pare mu dégg kii ne ko yal na la yàlla fay mu ne ko loo wax mu ne ko yal na la yàlla fay laa wax mu ne ko ah kon yow mu waxit nga maanaam mu waxit nga mooy ndax julit nga mu ne ko waa mais loolu dafa am problème man julit laa kay loolu daa am benn problème lu ba ah, déedéet déedéet déedéet parce que ci seen jamono dañoo criminaliser woon l'islam être un musulman crime la woon nekk julit crime la woon ci seen jamono ñoom waaw depuis ñetti junni at après presque ñaata siècle trois siècle voilà trois siècle moom daal mu waaru mais mu ànd ak loolu mu continuer dem ba marché ba laajte mburu yi mais fu mu feeñee nag mooy bu mu génnee pièce bi waa foofu la feeñe bu mu waxaalee ba war a jënd bu génne pièce bi jox waa ji mu xoolee pièce bi xool xam ne pièce bi yàgg na waa ji nag xam na ne pièce bi mos na am ci dëkk bi mais xam na ne pièce bi yàgg na ci la concerté wu ak commerçant yooyu mu àndal ñu ne ko effectivement pièce bi yàgg na kii boo demee daa am benn euh, kii mu tudd kanz benn trésor bu mu for xam naa daa for trésor kii buñ ko bàyyi mu dem nañ ko topp lii boo demee da ca yor yu bari te lii alal ju baree bari la nañ ko topp ci la ko waaji ne wax ñu foo jëlee xaalis bi mu ne mais sama xaalis la maa moom bëggul yoole gaayam yi quoi mu ne leen sama xaalis la maa moom yéen daal su ngeen may jaay ngeen jaay ma su ngeen ma jaayul bu dekkee da ngeen a soxla weccat bi jël leen ma may leen bàyyi leen ma dem dina ko duñ la bàyyi nga dem wax ñu xaalis bi foo ko jëlee coolool topp ko coolool topp ko ba affaire bi egg ci buur bi ñu jël ko yóbbu ko ci buur bi biñ ko yóbbee ci buur bi mu daal di leen wax ne ñoo gaa yi topp ko ba fini ko ba dóor ko ay yet uniquement rien que pour mu wax leen xaalis bi fan la ko jëlee léegi nag ci la commencé nag moom di dévoiler affaire yi mu ne leen ñun ñoo fi nekkoon man maa ngi tudd nii maa ngi ànd ak diw ak diw ak diw ak diw ñun démb xoolal muy wax rek mu ne démb démb ndax benn événement amoon fii ci dëkk bi démb buur bi tudd Diqyaanus moo ñëw taxaw di woote woo yàlla ñun ñu dénoncé ko weddi ne ko yow doo yàlla doo nangam sangam nangam nangam léegi nag waa ji commencé dof parce que li muy wax nit ñi nit ñi comprendre luñ ko parce que temps yi too too tolloowul temps yi tolloowul léegi ki nga xam ne mooy historien dëkk bi moom lañ mujjee woowi l'historien ki garde histoire dëkk bi kooku lañ woowi kooku bi mu ñëwee mu laaj ko turam mu wax ko ci la delluwaat ci archive dëkk bi parce que buur bi nga xam ne moo tombe a jamono jooju dafa bindoon seen ñoom ñëpp daal di leen condamné comme ay nit yu génn comme ay nit yu traite yu yu yu def mais trahison yu yu yu yoo xam dañoo wor dañoo wor nation bi ñu bind seen tur ñoom ñëpp daal di koy denc fi nga xam ne mooy ci archive yi historien boobu bi mu demee daal di récupérer li nga xam ne mooy fiche yooyu daal di koy laaj ne ko yow ci jamonoy Déqianos kii moo nekkoon ministre kii moo nekkoon ministre kii moo nekkoon chef ministre yi kii kii mu ne ko ñii ñëpp ngay wax maak ñoom ñoo bokk nekk ci montagne ba ñoo gi dund yow li ngay wax nii nga naan ay ati at depuis depuis trois siècles ñun li ñuy wax démb la démb nga naan depuis trois siècles man ci dëkk bi laa dëkk fi laa juddoo sama kër gi fii rek mu ne ko léegi nañ dem sa kër gaay na ko nañ dem sa kër buur bi de buur bi nekk si jamono jooju te buur boobu sëtu sëtu sëtu sëtu sëtu bu buur bi la mu ko nañ dem sa kër mu yéeg ci charrette bi mu naan borom sene bi jàddal gauche jàddal droite jàddal gauche ba egg ci kër mu ne leen sama kër gi nii ne fi laa dëkk bi mu duggee ci kër gi kenn xamu ko parce que ay sët sët sëtaatam ñoo fa nekk mu ne leen fi laa dëkk ñu ne ko ñun xamuñu la ñun xamuñu la mu ne leen sama soxna mu ngi tudd diw amoon naa doom bi may dem démb bi ma fi jógee di dem maa ngi bàyyi sama doom am presque 10 ans amoon naa benn euh, ku ma doon liggéeyal sama fas bi ku ko doon dawal nii la tudd fii sama kër la am na sama néeg bu nekk fii ci biir néeg bi sax am na kii am na am na tunnel boo xam ne foofu laa doon wéet di jaamu yàlla mu ne xaar leen leen man fii laa daal di dugg ci néeg am lu mu déplacé am fu mu laal affaire yu ubbeeku mu am benn tunnel bu gudd ci biir ndekete ñoom waa kër gi mos ñoo xam ne loolu mu ngi foofu pendant trois siècles xam ne kër gi sax am na lool fa dugg nag génne ay photo génne photoom photo soxnaam photo doomam yi génne yëpp teg ko bi ko génnee teg ko ndekete ki mu fekk ci kër gi di borom kër gi actuellement mooy mooy maanaam kenn ci sëtam yi la kooku bi mu ñëwee rek mu ne waa kii xam naa ko mu kii xaw ma sama maamaati maam la xaw ma lan effectivement ci la ñu waxtaan nag daal di euh, moom nag ci la commencé comprendre ci la comprendre ne kon ndeke moom tëdd na ci xunt ba fa la ci montagne bi nelaw fa luy tolloog mu toog jooy après mu expliqué leen histoire bi nu demee dëkk bi yëpp nag màbb wutali foofu montagne bi ndekee ci moment yooyu aussi ci moment yooyu dëkk bi ñoo ngi woon ci problème mu weddi dee dekki ne dee dekki amul ku dee c'est fini ci lu situation ci loolu moo nekkoon information dëkk bi jamono jooju waaw gëmoon nañu yàlla gaa mais ñoo gëm ne ku dee moom c'est fini ay dee dekk yooyu moom amul léegi nag yàlla bëgg leen a jox comme preuve parce que ku tëdd di nelaw lu tolloog trois siècles yàlla man laa dekkalaat comme ni nga meloon sa yére yi nga soloon ak dara changé wul ci yow kooku mën a yomal xiyaam dama lay dekkil nga war ko mën a gëm question asxaabul kahfi moo réglé si temps boobu jamonoy li ñu tudde dee dekki moo ko réglé ñoom fa lañ ko gëmee mais bi ñu demee nag fi nga xam ne mooy euh, ca montagne ba dëkk bi yëpp dem fa gars yi génn ñu saafonte ak ñoom ñu expliquer histoire bi nu mu demee mu des nag ban décision la ñuy jël ci ñoom parce que buur bi sax mais proposé na leen ne leen kaay leen dellu si waat société bi ngeen dundaat comme ñëpp tout le monde mais loolu xam nga mënul nekk ak kaza loolu mënul nekk moo tax après ñoom bi ñu waxee buur bi may ñu réunion may ñu réunion suñu biir ba xam ndax dañuy delluwaat ci société bi wala ñun dañuy rester fii bi ñu duggaatee ci biir foofu la leen yàlla rey waaw ñu dee foofu ñoom ñëpp léegi nag mu des nag comme fi lañ dee nan nan lañ leen di def ndax dañ leen di génnee suul leen ci armée li wala dañ leen di bàyyi foofu loolu après moo juróon benn discussion ci diggante waa jamono jooju ak léegi sunu boroom mu ne innahum ñoom waa dëkk bi in yadharu aleykum buñ leen jàppee yarjumukum dinañ leen sànni ay xeer aw yuidukum wala ñu delloo leen fi millatihim ci seen diinay bokkaale ji way lan tuflixu idan abadan te bu ngeen delloo ci diinay bokkaale ba dee ci du ngeen texe mukk ci àdduna wa kadalika borom bi deena niki noone ahsarna alayhim noone laa leen yeye ñi nga xam ne ñoom ñoo doon déngi-déngi naan day dekk am na wala amul yàlla nee na ci histoire bi laa leen yeye li yaalamoo ngir ñu xam anna wa'dallahi naka digub yàlla xaqun dëgg la de yàlla lépp lu mu digee dëgg la wa na saata naka yowmal qiyaam laa rayba fiha sikki sàkk amul ne day ñëw yowmal qiyaam day am de dee dekki dëgg la de yàlla li muy def li ci gën a yomb mooy rey la dekkalaat la parce que ki nga xam ne moo la bindoon bi nga nekkulee dara hal ata alal insaani xiinum min ad-dahri lam yakun shay'an madkura borom bi nee na ndax doomu aadama wax nañ ko boppam jamono bi nga nekkulee dara ma amal la nekkal la man yàlla kenn ku nekk ci ñun man ngaa laaj sa bopp balaa sa waajur wu góor ak sa waajur wu jigéen doon xamante foo woon fan nga nekkoon tontul ci laaj boobu rek soo bëggee xam kan mooy yàlla boo buggee xam yàlla fan la jaar ak yow boo bëggee xam ndax yàlla ginnaaw bi mu la amalee ba noppi nga daal di faatu jóge fi bu la nee dama lay amalaat boo ko bëggee gëm wala nga bëgg koo weddi laajal sa bopp saa waajur wu góor ak wu jigéen balaa ñuy xamante fan laa newoon hal ata ala al insaani xaynu min ad-dahri lam yakun shay'an madkura nekko woon luñ mën a tudd waaw moo tax mu ne la yàlla wax na ci suratu zaariyaat daal di waat ay waat yu bare bare bare bare bare daal di wax ne yowmal qiyaam dëgg de innahu la xaqun mislama antum tantiqun yowmal qiyaam dëgg la comme ni ngeen di waxe nii di wax noon la yowmal qiyaam di amee laa rey ba fii sikki sàkk amu ci dat yépp mën nañ koo jàpp mu fomm ba des datub yowmal qiyaam dat boobu moom du fomm mukk ci àdduna waaw ila ajalin musamma borom ma neen ab dat la bu ma note xam naa ko man rek maa ko xam te yowmal qiyaam yàlla rek a xam kañ la amul du yonent yi du ab yonent du malaayika du kenn ku xam yowmal qiyaam kañ la ku dul yàlla xamlu ko seytaane sax iblis bi nga xam ne mooy mujjee génn àdduna presque xamul yomal xiyaam kañ la waaw yàlla xamulu ko kenn juróomi mbir a ngi nii yàlla xamulu ko doomu aadama juróomi mbir a ngi nii yàlla xamulu ko doomu aadama lu ñuy tuddee alxaybi alxaybiyaatul xamsa muy juróomi inconnu yoo xam ne doomu aadama ak koo mën a doon lii day resté inconnu ci yow bi si jiitu mooy fan ngay deewe fooy génne àdduna loolu yàlla xamulu ko kenn fooy génne àdduna fan ban ndax Dakar ngay dee wala Casamance wala Fatick wala France wala fan fan booy dee fan la lay fekk daal loolu yàlla xamulu ko kenn donte nag am na ñuy génn di wane ne ñoom xam nañ ko mais du dëgg ndax yàlla ma wax ci alquran wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut amul benn bakkan la wax amul wa ma tadri nafsun la wax xam nga il foog ñu jàng dégg arab bu baax yàlla bu ne wama tadri nafsu an nafsu loolu li muy tekki mooy am na ñoo xamante ne nii du ñu xam fan ñuy dee kon am na ñu koy xam waaye bu ne wamaa tadri ñu ne waaw mu ne nafsun mooy benn bakkan képp kuy nit rek di bakkan rek suñ borom ne na xamoo fooy dee loolu mooy benn ñaareel ba mooy doomu aadama xamul lu muy am ëllëg sa wërsëg nu mu toll mënoo koo xam amul kenn ku mën a yëkkati loxoom ne sama wërsëg yi ma war a am yépp temps la ci milliard wala temps la ci nangam yow li nga jot am ba pare sax xamoo nu mu yow waxuñu li nga amagul de mais bi nga juddoo ba tey li jaar sa loxo bii nga moom ko wóor na la moom bu ñu la woon budgétiser ko nga wax ñu ñaata la nga koo xam bi nga juddoo ba am soixante dix ans laa wax wala ba am cinquante ans ñu ne la diw sàngam nga ne waaw ñu ne li mos a jaar sa loxo yépp nga xam ne yaa ko moom def ci nu la neex budgétiser ko wax ñu ñaata la nga koo xam. kon li war a am suba nag noo koy xamee sa wërsëg borom bi nee na wama tadri nafsun maada taksibu xadan borom bi nee na amul benn doomu aadama bu mën a xam lu muy am ëllëg ndax ministre ngay doon ndax avocat ngay doon ndax euh, contable ngay doon ndax policier ngay doon ndax militaire ngay doon ndax président amul kenn ku mën a xam lu muy doon ëllëg amul da ngay xëy rek ba mbiri sotti nga comprendre man ngaa tànnal sa bopp nag léeg-léeg nga gis koo xam ne dañ day tànn aw yoon bëgg nit man lii laa bëgg a doon jaar ci yoon woo waaye buy àgg ca càppaandal ga lay xëmmali rek gis boppam ci leneen léeg-léeg nga gis koo xamante ne nii benn soldat bu yor fetal ne ci tronc yi di ku ko ne woon yow li mun a yee man kay ku ma ne woon tey fii lay ne ma weddi la waaw am ay nit yoo xamante ne nii du lii lañ tànnoon li nekk tey tànnuñu ko woon donte nag léeg-léeg nga tànn benn affaire nekk ko waaw lépp day aju ci coobare borom bi rek waaw waaw muy ñaari mbir doomu adama du ko xam ñetteel ba ci nga xam ne doomu aadama xamul kañ la yomal qiyaam yomal qiyaam kañ la déedéet xamoo kañ ngay de xamoo fan ngay dee xamoo lan ngay am xamoo yomal qiyaam kañ la ñeenti mbir yi nit du ko xamal boppam beneen ñeenteel ba beneen juróomeel ba mooy ni ko umpalee sa bopp ni yow noonu ba ko umpalee keneen maanaam mënoo koo xamal sa bopp waaye mënoo koo xamal it nag nit moo tax seetkat yi moom bu yeboo ñu noppalu rek politique bi gën a bi gën a bi gën a doy waar mooy politique ku seet seet gisaane est-ce que xam nga ne seetkat yi duñu wax lu bees seetkat yi fi nekkoon mille quatre mille neuf cent quatre-vingt nangam lañ doon wax moom la seetkat yi deux mille vingt-quatre bii di wax ba tey te nit ñi mënuñoo c'est que nit ñee wuute rek nit ñi ñooy wuute rek nit ñooy wuute rek waaw moo tax yàlla mu ne anna wa'dallahi haqqun de yàlla lim leen dig day am de yàlla lum ñu dig mooy dinañ dund dee mu dekkalaat ñu yowmal qiyaam mu taxawal ñu àtte ñu loolu loolu lañu yàlla dig ku baaxal mu yóbbu la aljanna ku ñaawal mu yóbbu la sawara loolu loolu la boo xamante ne nii dara du ko dindi amoo benn solution kenn ku nekk sunu boroom xam na fooy dem man yàlla xam na ndax damay dugg aljanna wala sawara yow tamit kazalika amul kenn kuy yàlla lu koy yàlla xam-xamam bett amu ca lu koy bett amu ci lépp la xam lu ne nekk xam na fu muy mujj lépp lépp la sunu boroom xam lépp tuub waaye dégg ndax doomu aadama bu nekkee ci biiru waajuram bu jigéen yaa ngi dégg faloo yàlla di yebal am malaayika malaayika mi indi ñenti mbir dal di koy bind ci moom dogal ko ñeenti ndogal bi si jiitu mooy sa biir waajur wu jigéen la la yàlla di fekk ak sa wërsëg daal di bind lépp ne malaaka mi daal di bind lépp diw sàngam mii bu juddoo lii mooy wërsëgam wërsëg bi nii lay toll du yokk du wàññi buy jeex ngay faatu te doo faatu mukk te jeexut nag looloy benn ñaareel ba mooy ñaata fan ngay def ci àdduna ñaata fan nga fay def da tel da tel ngay genn aduna ci digënté bi li moy xew sa dundu di nga fi accidenté di nga fi fièvre di nga fi am problème bi di nga fi jang do fi jang di nga liggéey li do liggéey lé di fi am soxna do am soxna di nga am dom tant da dom ngay am sa doom ni lañuy tuddu lepp ci digënté bob borom bi da koy rëdd dogal ko te lu ci soppé ko am muy ñaar ñettel ba moy borom bi na rëdd fofé ndax da ngay baax mba da ngay bon nit ku baax ngay doon koo xam ne dangay ngay jaamu yàlla ci kaw suuf boo deewee dugg aljanna mbaa nit ku safaanu ngay doon dëgër bopp lool sax boo deewee dugg sawara lii moom borom bi da koy bind foofu ci sa biiru waajur wu jigéen balaa ngaa ñëw adduna yonente bi bi mu waxee lii saxaaba yi ba noppi dafa am saxaaba yu ne ko kon kay ñun jarul ñuy def dara ñun toog ñi rek <laughs> comme yàlla dogal na ñun sawara la ñuy dem wala aljana lañuy ñuy dem balaa ñuy judd ñu toog nii rek yeneen mu ne leen i'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa la ma ne ngeen jëf laa wax góorgóorlu leen kenn ku nekk nag la yàlla dogal ci yow day yomb ci yow jëf leen kenn ku nekk la yàlla dogal ci yow day yomb ci yow mooy mooy bu yàlla dogalee nga dem war a bokk ci ñu dem àjjana yoon wi lay yóbbu àjjana bu doon dara day yomb ci yow diine da lay doon lu naturel julli gi du diis yow fajar gi nelaw yi lu mu neex neex neex doo am problème pour jóg julli gi fajar tisbaar takkusaan timis gee maanaam sa cër yii du diis ci wàllum diine sëñ bi am na ñoo xamante ni nii diine jëfe ko nu mu leen diise ni mu leen diise laa ilaha illallah yéen temps bi ngeen di jël nii di ko jox diine ñëw toog si jàkk ji déglu da ngay yaakaar ne daa yomb yombul de am na koo xam ne boo ko ko def loo xalaatu ko sax xalaatu ko waaw xalaatu ko sax yeneen temps la koy dem defi waaw ki yàlla dogal ci moom mu war a dem sawara nag da gis ne yoon woowu day ubbeeku ci moom yomb ci moom lool boo doon wax fii ba suba du la dégg du la dégg waaw kullun muyassar limaa xuliqa la te pourtant doomu aadama ngay wax ne yàlla dogal na sawara ngay dem wala na ngay dem mu ne kon bàyyi ma toog xaar ndogalu yàlla ci man te pourtant boo ko ne yàlla dogal na sa wërsëg li li war a am yàlla dogal na ko pare te loolu du ko tëree liggéey du ko <laughs> day xëy di wàcc te wallahi li gën a leer ci li yàlla dogal ci doomu aadama mooy ñaari mbir mooy mooy wërsëg wi ak dee lii moo gën a leer laa wax ci li yàlla dogal parce que ñaar yi mënta ñàkk wërsëg wi ala kulli xaal mu neex la mu naqari la nga tayal mbaa nga sawar nga am xam-xam mbaa nga ñàkk xam-xam nga feñaak mbaa nga nangoo liggéey ala kulli alin wërsëg wi moom day ñëw ci yow boo bañee sax mu fekk si la boo duggee suufu laal mu fekk la fa wërsëg wi moom day ñëw ala kulli xaal loolu du foo dara du ko yokk dara du ko wàññi dee it kazalika ni la dee di dàqee noonu la sa wërsëg di dàqee léeg-léeg nit ki day toog fi toog benn waay duggee avion ca France wàcc aéroport dawal otom dem ba Casamance fekk fa benn góor gu toog ci buntu kër mu nuyoo ko dix france francs jàll dugg ci biir kër yi amul wala xoolal ku jóge ba France laa wax wàcc aéroport indi ay euro wàcc aéroport def ko CFA daal ci poosam duggee oto ndakaaru fii dawal ko ba Casamance romb benn góor gu toog ci mbedd wala fu mu toog nuyu ko bu loxoom ci poosam nuyoo ko ab fukki dërëm da yaakaar ne mbaaxu mbaaxu waasi la mbaaxam la wërsëgu borom bi tabaraka wa taala waasi du génn àdduna France mukk lu dul ñaat téeméer yi mu jox góor gii day ñëw jox ko maa la ko wax ni la ni la dee di toppe qul inna al mawta alladi tafirruuna fa innahu mulaqikum dee gi nga xamne da ngeen koy daw mu len di dàqe nga xamne mëno mënoo muccu sa wërsëg non la mel maa la ko wax buy jeex da fiy jog te kenn mënu la ko xagn nag wërsëg wi ni nga xamne ne kenn mënu la protéger ba do dé nonu la wërsëg mel kenn mënu la ko xagn nit mënu la baña baña baña baña baña baña bañ ba xagn la sa wërsëg man tane waye nit mënu la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba yok sa wërsëg man tane andal ak dar rek waaw bi nag wax na ne am na ay jëf yoo xam ne yàlla dina ci yokke wërsëgu nit ki am na que yàlla mi nga xam ne moo bind affaire yi yonent bi nee na nooy aaya la sax aaya la aaya alquran yàlla moo ko wax ci alquran mu ne waa indahu ummul kitaab yamxu wa yusbitu ma yacha borom bi nee na xalima gi bind dogal yi ak téere yi ñu bind dogal yi suñu borom nee maa ko yor maay xool lu ma neex ma gome ko ma xool lu ma neex ma bàyyi ko yonent bi daal di wax ne laa yarudul qadaa illa du'a li yàlla dogal xas bind yonent bi nee na dara mënu koo soppi lu dul ñaan ñaan waw du ay sangoo saafara mooy soppi mbir yi du sangoo bayre mooy soppi mbir yi du takk ay affaire mooy soppi mbir yi du am sëriñ mu mbir yi du dara li koy soppi daal yonent bi nee na mooy ñaan rek yonent bi daana wax ne képp ku bëgg yàlla yokk sa wërsëg yokk say fan mu ne ah mu ne ko del jokk sa mbokk del jokk mbokk kon jokk mbokk day sabab sa wërsëg yokk say fan gën a gudd loolu da lay jàngal ne kon mbir yi mën naa soppi waaw mu ngoog suñu boroom nee na xam leen ne yowmal qiyaam daal anna saata naka yowmal qiyaam laa rayba fiiha sikk sàkk amul ne day am is jamono bi nga xam ne na na baynahum am yéen a ngi xëccoo jamono ba ñuy xëccoo seen mbir ci diggante ba ñi naan dee dekki am na ñi naan dee dekki amul ñi naan yomal qiyaam am na ñi naan waa yomal qiyaam amul dara ñuy werante yàlla daal di leen dekkal ay nit yu nelaw depuis ñetti téeméeri at léegi nag bi gaa yi duggee ci xunt wi di concerté ba deefa ñoom ci la ñu dugg gis ne gaa yi génn nañ àdduna mu des nag ndax dañ leen di génne fii suul leen wala dañ leen fii bàyyi am ñu wax lee am ñu wax lële ñenn ñu ne fa qaaloo ñu ne ubnu alayhim bunyaanan fii ñu dee nii bàyyi leen leen fi tëj leen xunt bi ngeen tabax ko ngeen bàyyi leen fii rabbuhum seen borom aalamu bihim yàllaa leen gën a xam bu leen dépassé bu leen di déplacé koor yi nañ leen leen bàyyi fii qaala allazina galabu amrihim ñen ñi daal dañu wax ne la natakhidanna alayhim masjidan ka leen ñu tabax fi ay jàkka ñi kat ay nit ñu sell lañ de sen qabru yi ka leen ñu tabax ci ay jàkka di fi jaamoo yalla ñoy ñoy bokale kat ñoy bokale kat ñom no def ñu kéré mbirum bokale wa ñi ne ñi daal ay nit ñi yiw lañ ay nit ñu bax lañ ka leen ñu tabax ci sen armeel yi ay jàkka di fi jaamoo yalla tabax mel dafa haram ci l'islam tabax bàmmeel laa wax tabax bàmmeel dafa xaraam ci boo ko tabaxee nii sax wërale ko ni ay teg fee birig teg fee tabax ko loolu rek dafa xaraam waxuma la nga tabax fa néeg nag néeg boo demee yenn armée li fii da yaakaar ne fii moom ab quartier la quartier waaw am na ndakaaru armée ndakaaru yi boo ko tiimee nii da nga ne lii ab quartier la yoof nga yaakaar ne quartier la loolu dafa xaraam loolu du diine loolu yonent bi da ko doon tere alayhi salaatu wasalaam waaw man benn bi may juddoo bi ma dundee ba tey di dem ci ay cimetière ci benn cimetière laa dem mooy village ñoom Adam foofu nag Gucube bi loolu mosuma koo gis ci àdduna mosuma loolu Médine rek la am Baqiya Médine kese laa ko gis mooy benn cimetière boo xamante ne nii gisuma fa toq brique toq brique laa wax luy brique amu fa te li ci gën a yéeme mooy dañoo séparé cimetière yi góor ñi fii lañ leen di suul jigéen ñi fii lañ leen di suul mais bàmmeel kese ngay gis ki ñu suul daal ba yëkk ba jal suuf si nii ci kawam samp fee benn brique samp fee benn brique loolu kese ngay gis mais tabax amu fa loolu mosuma ko gis amul fenn fu ma ko mos gis lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt boo demee gis ñu tabax ñenn ñi moom néeg lañuy tabax dangay gis koo xam ne moom day jël benn espace bu yaatu tabaxal ko fameem ku faatu ñu mbaqala ci néeg bi loolu day gën a feesal armeel yi day feesal armée jël espace te ki ngay protéger si naaj beeg di ko porté waa tabax bi pour lan la non loolu laa bëgg xam na tabax bi pour lan la maanaam pour protéger bàmmeel bi wala pour protéger néew bi waaw wane daraja la laa yaakaar parce que léegi leen gis saay bàmmeel yoo xam ne dañ koy karole ay karo yooyu moom karo yu seer yaa ngi dégg def fa lampe am na am làmp de def fa lampe est-ce amul yuy taal cuuraay foofu ci biir sax <laughs> ah ay cuuraay dañ koy cuuraay waaw non mais quand gis nga li ma leen waxoon démb li ma leen waxoon démb lool laay waxaat ki gën a ñàkk xel boo koy wër jàppal ab bokkaalekatu yàlla ki gën a tàggoog sagom ki gën ki ñàkk muus dëgg yow nit ku faatu nga gas profondeur bu xóot mbaq ko ci biir suul ko waxuma lool nga tabax bàmmeel bi tuwaatiire ko dale ko am na dëkk sàngam kër baay diw jàkka ji daa nekk nii xabru sëñ bi nekk nii xabru seen bi wallahi moo dàq jàkk ji billahi wallahi taala boo ñëwee nii xamoo dëkk bi xamoo ñu ne la fii le ak lee luy jàkk ji nga yaakaar xabru bi lay dem parce que xabru bi moo gën a yaatu ba pare moo gën a rafet niñ ko liggéeyee moo gën a rafet karo yañ fa def ak peinture yak yooyu jàkk ji melu noonu te boo duggee ci biir moom mën nga faa xalangu bërëngu dafa tellement rafet set waa am ay lamp lamp climatisé lamp yi di dem naan rey rey rey rey lañ yaa ngi dégg te ni ko sawaay waxe boo demee am na ku fay jaar di taal ab andu cuuraayam di ko fa bàyyi ànd ak loolu doo ma dafa gëm ne néew bi day bànneexu ci yooyu am na yoo xam ne nag politique la lu ñuy tuddee dee muy dox dee muy dox mooy da ngay génn àdduna ba noppi nag di dundal sax njaboot parce que gars yi ñëw di ziyaare affaire yi di joxe foofu dara di fa sànni xaalis léegi yooyu day dundalaat fin bi dee muy dox waaw ah loolu gars yi di def fii tamit de gars yi dem ay Fès ak Fass ak noonu loolu la def fii de day pèlerinage jóge Sénégal dugg avion dem ba Maroc dem ziyaare benn xabru foofu sànni fa dara ñëwaat ah la gars yi de ma demee Maroc ma demee Maroc damaa yéemu yàlla parce que yàlla mu ngoog sunu borom daal nee na sa yaquluuna léegi nag gars yi commencé nag di werante asxaabul këfi ñaata personne lañ ñaata personne lañu loolu moo nekkoon werante bi après ay dégg sa yaquluuna ñenn ñi daal dinañu ne salaasatun ñett la bu dee juif yi ñoom loolu lañ wax juif yi daal nee nañu asxaabul kahfi ñett lañ dong sa yaquluun dinañu wax salaasatun trois personnes la rabiuhum li leen quatrièmal kalbuhum mooy seen xaj ba wa yaquluuna yahut yi ne euh, chrétiens yi ne leen xamsatun juróom la de saadisuhum kalbuhum li nga xam ne mooy seen mooy cinq lañ ki leen sixièmal kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil bi yàlla nee na li ñuy wax yëpp dara wóoru leen ci rajmam bil bi rek dañuy dañuy dañuy tànde nii rek di wax waa estimer rek wa yaquluuna xam naa julit ñi lay wax wa yaquluuna julit ñi ne leen sabaatun bal set la wa thaaminuhum ki leen wicceel kalbuhum mooy seen xaj ba yàlla weddiwul nag kon daa ni loolooy dëgg de troisième wax premier bi dañ ne non trois personnes la quatrième bi mooy xaj ba am ko ne déedéet cinquième la cinq personnes la sixième mooy xaj ba am ñu ne non sept personnes la huitième ba mooy xaj ba mais nag yàlla weddiwul loolu xul suñ borom na yonente bi xul waxal rabbi sama borom yàlla alam moo gën a xam ba iddatihim seenub lim maa yaalamuhum illa qalil lu bare bare ci nit ñi xamuñu ñoom ñaata lañ de lu dul lu néew ci nit ñi kon am nañu ko xam fala tumari fihim yow nag bu dàgg sante ci question bi illa miraan zahiran lu dul ab dàgg sante bu ndaw rek mooy ku ñëw naan laa noo asxaabul kahfi trois lañ ki leen quatrième mooy mooy xaj ba ne ko noor sëñ bi du trois quatre lañ bu insisté bàyyi ko nga dem bu fa nekk di werante waaw wala tastafti fihim minhum ahadan te ku la ñëw di la laaj tamit ginnaaw laaj bi bu ko tontooti yow waxal li nga xam te nga pare nga bàyyi leen foofu bu leen ci tontu benn wax la rek jeex na démb nee naa li ma gën a yéem ci histoire bi mooy xaj bi nga xam ne saa yàlla tuddee nit ñooñu tuddaale xaj bi saa bu leen yàlla tuddee tuddaale xaj bi loolu dafay wane rek ne maqaama bi nga xam ne xaj bi am na ko lu ko ko may muy nekk gi mu nekk ak nit ñu baax moo ko may loolu rek daf la war a jàngal ne booy àndak ak ñu baax su leen yàlla tudde moom tudd la fa moom keroog wax naa leen njëriñu toog ci jàkka nii yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ne ay nit saa bu ñu toogee ci jàkk nii di waxtaane mbirum yàlla malaaka yi dañuy ñëw jël seenu tur ñoom ñëpp liste leen yóbbul ko sunu borom ne ko ñii daal te jàkk ja leen fekk ñuy jàng alquran di ko jàngalante yàlla ne ñii ñëpp jéggal naa leen léegi malaaka yi dañuy jëlaale turu ki nga xam ne moom déglu waxtaan bi tax ko woon ñëw waaye dafa amoon ku mu soxla rek ku mu soxla woon ci ñun dem borom bi dina kooku sax ama koy boole ci njéggal li daa dina ñooñu ay nit yoo xam ne ken du leen xam di torox kenn du leen xam di torox ku leen xam texe loolu da lay won ne ànd ak nit baax wala toogandoog nit ñu baax am na njëriñ trop baax na lool waaw benn waay ñëwoon na ci yonent bi ne ko yowmal qiyaam kañ la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko looy waajale yowmal qiyaam mu ne ko dara xanaa bëgg la rek yow mii bëgg la rek bëgg Abu Bakrin bëgg Omar bëgg Ali loolu daal xam naa ne moom dëgg na ci man moom yonente bi ne ko bégal yomal xiyam fu yàlla yóbbu yonente bi yóbbu fa Abakar yóbbu fa Ali yóbbu la fa yow waaw loo waajale yomal xiyam mu ne ko daara du ay julli du ay wa man daal li ma leer ba leer daal mooy man ku la bëgg laa te bëgg naa Abubakar bëgg Omar bëgg Ali bëgg Ousmane yonente bi ne ko lool kese mu ne ko waaw mu ne ko kontaanal yomal xiyam xamal ne fu yàlla yóbbu ñooñu yóbbu la daal dina ko al mar'u ma'a man ahab yomal qiyaam yàlla day dajale fans yi ak seeni fans fans yi ñoom la yàlla dajale xoolal booy fansoo nag da nga xool ki ngay fansoo waaw boo nekkee fans dib sàngam mbërum làmb sàngam nga nekk fansam yomal qiyaam bu ko yàlla yóbbu la fa ana fans yi ñu ne ñoo ngi nii waaw ngoog wala taqulanna bul waxati mukku li shay'in ñel dara inni man fa'ilun dana ko def zalika lole gadan suba illa ludul nenga an yasha allah insha allah bul waxati mukku dana def dara suba ludul wax nga insha allah parce que sar bi lolo ko toxono wati gaay ñoo ñoon ci yonande bi nako ashabul kahf moy ñam yonande bi leen dem leen bu suba bu ngeen ñe ma tontu leen fatte wax insha allah suba jot yalla wax ko dara bi ko yàlla waxee na ba pare nag ci la ko ne attention de lii bu mu la dalati ah bul fi waxati dana def dara suba suba bu suba danaa def dara lu dul wax nga in insha allah lii alquran la léegi nag gaay di ko toñe ñen ñi di ko toñe nan gaay bu football ibaaru yi insha allah passion bal bi mbokk insha allah insha allah ah, di ko foye li alquran la alquran la yalla moy tere nga nan suba dana def dara lu dul newo insha allah insha allah bu sobe yalla wax ko ci olof wala arab amul problème làkk boo ko wax baax na bu la ne da wax ko ci tubaab si jëla ba s'il plaît taaja ah je vais faire ça s'il plaît taaja ah problème c'est pas forcément nga wax in baatu arabe bi c'est pas forcé de boo nee nga wax rek incha allah incha allah incha allah ñenn ñoom bu soobee yàlla ndéem soob na yàlla bu subaak jàmm bu soobee suñu borom danaa def nangam leer na. waaye bul ne bu soobee yàlla ak diw kenn du ko wax xadiisu abdullah ibnu abbas buxaari moo ko solo dafa am benn waaye bu ñëw waxtaan ak yonent bi ba àggal daañu ne ko subaak jàmm bu soobee yàlla ak yow yonent bi ko xëcc poñe xëcc ba mu ñëw ne ndax danga may bokkaale yàlla neel bu soobee yàlla képp waa si ne bu soobee yàlla képp mu ne ko yàlla demal doxi sa soxla yonent bi boo bokkaale ci kanamam day day day graf waa ji ne ko waa dina ko bu soobee yàlla ak yow bu subaa danaa ñëw rek yonante bi xëcc ko ne ko ndax a jaaltani lillahi niddan ndax danga may dendaleeg yàlla ndax danga may dendaleeg yàlla xoolal rasulillah mu ndax danga may dendaleeg yàlla waxal bu soobee yàlla dong ndax coobare moom yàllaa ko yor wa ma tashaa'una illa an yashaa allahu rabbul alamin dara muñu leen soob ci kaw suuf lu dul ne daa soob yàlla ba ba nopp coobare yàllaa ko yor diw sàngam yoru ko baay diw yoru ko sëriñ diw yoru ko waaw diggante asamaan suuf si li fi am moom suñu borom dong lay soob waaw wadkur na nga tudd nag rabbaka sa borom ida nasiita boo fàttewee soo bëggee wax benn affaire nga fàtte tuddal yàlla mu fàttali la yàlla mu fàttali wala boo bëggee wax ak nit ki nga fàtte wax incha allah boo ko fàttalikoo rek nel ah incha allah waqul na nga wax asa an yahdiya nii gëm naa ne yàlla day asa xat xalsat na an yahdiya nii mu jubal ma rabbi san borom li aqraba min hada rashadan lu gën a jege lii waaw lu gën a jege lii maanaam bi ko bi mu ne gaay bu subaa bi ngeen ñëwee ma tontu leen suba jot yàlla ñëwut waxul dara ci la ko ne yàlla ne ko bu mu la dalati de léegi nag amul problème comme fàtte nga tuddal yàlla soo paree nag neel yàlla dina ma dina ma indil réponse bi léegi léegi dina ma jox ay njub dina ma orienté daal waaw. sunu borom daal di delluwaat ci situation asxaabul kahfi mu ne wala bisu ñu daal di sax fii kahfihim ci seen xuntuba salaasa si sinina ña eh, ñetti téeméeri at wasdaadoo tisxan yu dolleeku juróomi at juróom eh, yu dolleeku. Euh, juróom-ñeenti at qulillaahu qul na wax yow muhammad allahu yàlla alamu moo gën a xam bi ma labisu at yi nga xam ne ñoom la gaa yi def ci xunt wi lahu ñel na ko moom dong yàlla xaybu samawaati kumpay asamaanu juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar lu fi xew yàllaa ko xam luy waaj xew yàllaa xam lu xew te xewagut yàllaa ko xam luy xew ëllëg yàllaa xam doomu aadama amul kàttanu xam lu xew lu xewagut nit mënta xam lu xew a gut sénégalais yi déglu leen gaa ñi dañoo dëgër bopp da ngay wax bay bëgg a dee mais dañuy lànk bañ ne jàpp ne nit mën naa xam lu xew a gut fi mu ne doomu élection yi sax am na ñuy wax ne diway gañeek diw du gañeek xam-xam boobu amut loolu faw nit ñi xam ko xam-xam bu lay taxa xam mbir yi résultat yi amut mën ngaa def nag ay sondage teg ko ci ay chiffres lool mën naa ne mais addu ci ak sañ-sañ coupe d'Afrique bi nga naan di way gagné équipe sangam mooy gagné ñenn ñi moom ñu gën a dëgër fit moo ñuy joxe score yi score yi borom score yi sëñ bi ñoo gën a dëgër fit ñi lay wax sa dund nag ñi lay wax yow nag sa dund yow sa dund sa dund waaw yow day euh, ah yoonu tukkee ngi de yoonu tukkee ngi bu fekkee nag nga ne ci visa ñu ne waaw tey sama ci ay visa ci wut visa laa la wax kañ ngay def bu dee aay dañ koy gis nga yooyu xamul information yoonu tukkee ngi de tukki bii daal di xaw a def nii nag di la xaar nga wax dara pour ñu gën ci ñu ko ak santé foofu boo waxul dara ñu la ah boo nekkul ci yoonu tukki bi de am na sa frère bu nekk ci yoonu tukki gis nga teg xel rek moom laa leen mille neuf cent mille huit cent nangam seetkat yi mille huit cent nangam lañ doon wax moom la seetkat yi euh, deux mille vingt quatre bii di wax waaw ñi gën a ñeme yàlla mooy gisaanekat yi te Sénégal yi dañoo lànk bañ ne duñ ko bàyyi waaw non seulement duñ wax dëgg ñaare ba dafa xaraam boo demee ci seetkat mbaa nga woo ko téléphone mu lay seetal mbaa ci TikTok bii nga dugg mu lay seetal yàlla nangootul say jaamu yàlla maanaam ab yéefar nga loolu amul négocier du samay wax rasulillah moko wax man ata arrafan aw kahinan fa ma yaqul fa kadaba qad kadhaba ala ma bima unzila ala muhammad rasulillah neena kep ku suk ci karam set kat nga jox ko sa tur mba sa turu yaay mba nga jox ko chiffre mu lay setal yonent bi neena weddi nga alquran nekkatub julit bo tuubut bo faatoo musiba dal ah boko xamul won jéggal nañ la ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا lépp loo xamul ci diine yàlla jéggal na la ba keroog nga koy xam boo ko xamee nag tey jëf nag musiba dal la moo tax suñu borom mu ne wa ma kunna mu'adibin hatta nabaata rasulan yàlla nee na du ma mbugal kenn lu dul information bi daa lu dul information bi daa egg si yow ñoom ñëpp ñoo yem seetkat bi la woo téléphone ak bi nga seeteeg bi nga yónneeg bi nga envoyé message ak bi ñëpp waaw ñoom ñëpp waaw waaw comme day lay seetal kay jarul woon mu lay wax fooy woote mu ngoog mu ngoog suñu boroom nee na yàlla daal moo xam aji kumpa moo tax mu ne absir bihi wane ko ñu gis ko wa asmi nga waxal ñu dégg waneel ñu gis waxal ñu dégg loolu mooy diine loolu la yàlla sant rasulillahi ne ko diine ji mu ne ko waaw abusir bihi waneel ñu gis ko jëfal gaa yi gis la yonent bi jëf na ñu gis wa as asmi waxal ñu dégg yonent bi wax na ñu dégg lépp diine nag pendant vingt trois ans moo tax lu bees moom man ne moom pendant vingt trois ans bépp jaamu yàlla bu mënti doon yonent bi su ko borom bi joxe yonent bi da ko naan abusir defal gaa yi gis aj màkka première aj màkka xoolal julli rek julli jël ndax julli misaalu julli bi jibril ba yonent bi riñaanee dem jëli julli yi indi ko woowul gaa yi ne leen acca julli leen julli nga jullee ngoog julli leen waxtu wi daa jot jibril fàqe asamaan ñëw daal di jiite yonent bi taxaw ci kanam yonent bi taxaw ci ginnaaw jibril saxaaba yi taxaw ci ginnaaw rasulillahi yonent bi julli jibril di julli yonante bi di roy ci jibril saxaaba yi di roy ci yonante bi bañ sëlmal bi pare mu gestu mu ni leen gis ngeen li ma def ñu ne ko waaw gis ngeen mu ne ko salloo julli leen kama raaytumuni comme ni ngeen ma gisee usalli may jullee nga xam ne nekku fa naan dangay ngay kabaar booy kabaar yëkkati loxo yi waxal allahu akbar soo paree taxawal jàngal fatiha rukool soo rukoowee da ngay lem ndigg li jëlal sa loxo yi teg ko ci wëpp déedéet daa def gaa ko gis ngeen mu ne waaw mu lii la diine je pendant 23 ans lu ko yàlla jox da koy dund ak saxaaba yi gaay gis ñu wax mu dégg bi mu paree nag li bi 23 ans yi jeexee ci la taxaw ca makka fu ñuy jabalu muna benn montagne bu tudd muna wala mina mu taxaw fa bi mu taxawee mu ne leen li ma yàlla jox yépp ci diine pratiqué naa ko seen kanam nga gis leen desuluma ci dara dara desu dara ndax jot ngeen lépp saxaaba yi ne jot nañ mu ne yàlla seedeel ne li ma waxoon li ma santoon yépp accompli naa mission bi yàlla wàcce aaya al yawma tey akmaltu laa matal diinakum seen diine wa atmamtu ma mattalee tëj ko ah ni'mati sama xéewal aleykum ci yéen wa raditu ma gërëm lislaama diina lislaam bi diine aaya boobu daal di wane ne yàlla moom tëj na affaire yi akmaltu la wax matal naa mat na ñu dem nag ba ay weeru kooru gaa yi di la indil ay naafila di jour ak ay naafila euh, tay beeg ak ay yeneen i jëf yoo xam ne vraiment yonent bi bàyyiwu ko foon bi mu fi jege loolu mënuñu koo nangu loolu moom coow mooy bari rek mais moom mënuñu koo mënuñu koo nangu moom waaw lu nekkul woon diine démb mënta nekk diina tey te li baaxaloon gaa yi démb yi mooy baaxal ni ci tey parce que suñu borom yàlla kat moo wax ne wa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw su yéen ñii ba keroog àdduna di tukki su ngeen gëmee yàlla comme xolal comme ni ko ñële gëme woon texe ngeen ñun ñooy roy ci ñële mais ñëy duñ roy ci ñun il faut ñu xam loolu ñun ñoo war a jël ci ñële maanaam yàlla ñële la ñuy xoolee mooy saxaaba ya ñoom la yàlla ne radiyallahu anhu wa radu anhu bi nee na gërëm naa leen léegi ñii di ñëw seen ginnaaw nan roy ci yéen sunu borom nee na maalahum amuleen min dunihi walis yàlla min wala yéen geneen kilifa waaw ñoom asxaabul kahfi lay wax de nee na ñoom amuñu woon beneen kilifa boo xam na ci lañu ñu doon wéeru ku dul yàlla waaw wala yusriku te ñoom duñu bokkaale fi xukmihi ci àttee moom sunu borom ahadan kenn déedéet yàlla amul kenn ku koy dimbali ci li nga xam ne moo ngi koy def moom sunu moom sunu borom tabaraka wa taala ma jeexal ci aay bi pour ñu mën a jël ay laaj ak tontu mooy quinze waaw mais laaj yi mën na gudd quoi yàlla mu ne wat lu jàng maa li nga xamante ne ni uxiya ilayka moom la ñu wax yu jëmee ko ci muy alquran min kitaabi rabbika ci sa téere boroom yonente bi li mu wax yëpp du ay waxi boppam léegi yàlla da ko ne jàngal waxal nit ñi li nga xam ne moom laa wax yu jëme ko ci min kitaabi rabbika sa téere borom la mu baddila li kalimaatihi bul soppi dara ci wax ji laa mu baddila wax yàlla amul dara luñ ci soppi walan tajida min dunihi multahadan te nag na nga xam ne doo am mukk ci koo mën a dellu yomal qiyaam mu musal la ku dul yàlla walan tajida la wax walan waxoon leen lan li muy tepp li muy lan mooy jamais de la vie walan tajida doom am mukk fii ci àdduna ak fële ca alaxira min duunihi walis yàlla mul taxadan ku lay dimbali mënoo am fii ci àdduna ku lay dimbali ku dul yàlla alaxira mënoo faa am kenn ku lay dimbali ku dul yàlla mul taxadan mooy làquwaay làquwaay malja mooy làquwaay wasbir nañu nañu yem foofu parce que bu ma duggee fii Mwen na yak Le gen ak, japon ane, mwen nam ay lak Li desti nyon not, li desti nyon gylli Mwen na nyon yem fo pou Nou eh, bayi be Insha Allah Mwen jel ay kesyon